mbokku site internet sunu buzz TV nuyu leen leen bu baax jaajëfal leen ci safoo bi ngeen seen site internet bi li gën a ci bopp xabaar yi dañ koy door rek coow dox ci diggante ki nga xamante ne nag moom mooy Frédéric Napel nekkoon ex policier moom nag daal dinay jël ab plainte rek jébbal ko ki nga xamante ne moom mooy njiital opposition bi di Ousmane Sonko ginnaaw nag plainte ko ñu ko porté woon ki nga xamante ne nag moom mooy affaire u Sweet Beauté ak ki nga xamante ne nag moom mooy Mame Mbaye Niang ci affaire u Prodac beneen plainte rek bu daan waat ci plainte Frédéric euh, Nampel moom nag la muy toppee ki nga xamante ne nag moom mooy Ousmane Sonko rek mooy mis en danger de la vie d'autrui maanaam daal yee fitna ak li nga xamante ne nag moom mooy diffamation ak accusation loo xamante ne nag accusé nit loo xamante ne deful ko niki démb rek moom mi nga xamante ne nag moom mooy Frédéric dafa daal di woon demoon rek ngir yóbbu boobule plainte wante nag jamono ji enquêteurs yi nag daal nañ koy déglu mu wax la muy wax kon nag mu mel ni rek Ousmane Sonko nag dinañu ko convoqué waat ci lu yàggul dara bu ñu sukkandikoo ci locaux yi des sites unité bu délit bu police nationale ñu fàttali nag leader